di jot yu kàddu yi sëriñ bi sëriñ baa ngi leen di di nekk di ñaan suñu borom jaamu yàlla gi nga xam ne ci lañu ñu nekk tey yàlla na ko suñu boroom nangu te làqal nu ko fa ñu ko soxlaa mu jox nu ko muy bis boo xam ne nag xew-xew bi ci amoon deesul dañ mukk di ko fàttali muy xew-xew bu am diggante suñu borom tabaraka wa taala ak ab jaamam jaamam boobu di sayidina ibrahima alayhi salaam mi yàlla wax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko tumma awxayna ilayka an ittabi' millata ibrahima xanifan wa ma kaana min almushrikin muy jëmm joo xam ne ku bàyyi woon yàlla ak boppam la mu mel ne nag saa bu ñëwee des na ca jàng ana nu jaam bi di dunde digganteem ak boroomam ak digganteem ak moroomi jaamam loolu su ñu demee ci alxuraan ji sayyidina muhammad indi danañ ko ci fekk bu ñu demee ci suuratul anfaal ma ngi ña ngi tey fekk muy wax ne fattaqullah loolu lañu ñu séq ak yàlla nit ñi loolu la ñu séq ak yàlla baal ko xel di ko wattandiku ci ay tereem di sàkku ngërëm ci ay digaleem ba loola weesoo itam ni ñuy dunde ak nit ñi daf ko ca leeral bu baax ne wa aslihu daata baynikum seeni diggante it nay ratax fu ngeen dégg diggante bu xaw a am ñagas ñagas tuuti na ngeen ca dox ba mel na mbar a mel yaar yooyu mooy am nag nit ki soog a teg tànkam ci tàmbalee jëfe ndigalu suñu borom fattaqullaha wa aslihu daata baynikum wa atiu llaha wa rasulahu in kuntum muminin bu fekkee bëgg ngeen ñu di leen wooye ay jullit jéego boobu ngeen di jëkk a seqi teg ca ba ca topp muy baal xel yàlla moytu ko ci ay tereem sàkku ndigalam ci ay sàkku ngërëmam ci ndigalam euh, mu mel ne dañ ko ne jullit dëgg-dëgg mooy kan mooy mu ne innamal mu'min <clears throat> alladina ida dukira allahu wajadat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa rabbihim yatawakkaluun loolu moo feeñ lool ci jëfi Seydina Ibrahima ji nga xam ne moom la ñuy dundal tey bu dee ci suñu diggante ak nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen ngëmam du mat sëkk lu dul dafa bëggal bokki jullitam ak ñim bokk réew mi lim bëggal boppam laa yuminu ahadukum xata yuhiba li axihi maa yuhibu li nafsi misaal na ko ci suñu jëmm yi nga xam ne ci lañuy ñuy doxe mu ne diggante jullit ak moroom ja ci bëggante aku ku yërëmante ak ku na xool aw yaramam dana xam ne yaram wi su bëñ dee metti benn cër duutu yëngu ngir jàppale ko ca metti tam boobee su tànk dee metti noona su loxo dee metti noona su ay gët di metti noona muy fi mu waxee ne masalul mumini muminina fi tawaddihim wa taraxumihim wa taatufihim ka masalil jasad ida shtaka minhu udwun tadaa lahu shaairu aljasadi bilsahari walxumma loolu nag ci suñ jamono mën naa gën a yaatu mooy képp koo xam ne da ngeen a lu ngeen mën a gudd séddoo ngeen jàppe ko jénn jëmmu yor wenn yaram lu cay metti rek metti ci ñépp lépp lu nit yëkkati it tamuy lu mu war a yëkkati lu diine nangu ak taalibe nangu ko it ñépp ànd ak moom waaye ni ñuy boole dund suñu diggante ak suñu borom li war ci suñu diggante ak moom ak li war ci suñu diggante ak nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk na ko ci benn xadiis boo xam ne dañu ko laaj yaa rasulallah aleyka sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga tegtal ma jëf joo xam ne su ma ko jëfee yàlla dana ma gën a bëgg nit ma gën nit ñi gën ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko dangay ngay bàyyi àdduna bañ am soxla lu dul diir bi nga fi nekk xamoo kañ lay doon lu mu néew néew nga fexe ba teg sa tànk ci ndigal suñu borom yi su boobaa la bëgg waaye it nit ñi soo bëggee ñu bëgg la da nga leen di bàyyee liñ yor te loo am nga woo leen bokk ko ak ñoom yaa rasulallahi jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam an saad ibni saadin saaidi fa qaal ya rasulallahi dullani ala amalin ida amiltuhu ahabani llahu wa ahabani nnaas fa qaala idhab fi dunya yuhibuka allah wasat fi ma inda allahi yuhibuka nnaas waaye loolu bu ñu ko gënee tënk mu gàtt sëriñ bi nee na nañu settantal bu baax a baax xadis bi may bëgg a jàng te yóbbaale kenn ku nekk di ko nafara ka nafara nañ ci ku ñuy wax abu mas'ud abi mas'ud uqbat ibn amr al ansari al badri yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yi fi jëkkoon a jaar gaa yaa ngi fàttaliku ci ñoom genn kàddu goo xam ne jamono ju ne day mën a dox kàddu ga mooy nit ki su amul kersa lu ko soob na def inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwati l ula ida lam tastaxi fasna ma shit loolu nag suñ ko jàngatee ci jamono ji ñu toll danañu gis ne ay waxante saa su ne day jóg ku ne di wax moroomam di ko wàññil ay weex-weexam ak ñuul ñuulam waaye suñ delloo ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu tënkee bu ñu ko ci kersa du ñu wax kenn dara te ku ñu waxee duñ ko gestu ba di ko delloo lam ñu wax sëriñ bi ne nañ ko baal xel bu baax a baax te yóbbuloo ko yonent bi daal nee na koo xam ne kersa di yax na ci moom lu ko neex na def yàlla nu ci yàlla musal sëriñ bi nee na mi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala jaamu yàlla gi ñu ci def tey mu nangu ko bu ko nangoo nañu ko ko ful te lu mu wax dana ko def inna la nudiu ajra man ahsana amala dencal na ko te dañ bañ cee gis suñu bopp ba bañ koy soxla di ndokkeel ñëpp tey balu xaq ñépp tey bal xaq ñépp di ñaan sëriñ bi nee kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam ak ñene ci digg bi ak ñene sa ginnaaw ñëpp ak ñu topp ci ñoom ak ñañ topp yàlla may leen fan yu gudd te dëgëral seeni taxawaay di ñaan yàlla it suñu moro moroomi jaam yi nga xam ne ñoo fi bokkoon ak ñoom nekk daaw te fekkee wuñ ko ren yàlla na leen yàlla yërëm sëriñ bi it na mi ngi leen di jaale bu baax a baax a baax kenn ci njaboot gi nga xam ne ku amoon taxawaale ci dëkk bi te bàyyi koo fi fan rek mi ngi ñaan ñëpp ñaanal ko kàddu yooyu la ne nañu ko jottali lu ci neex a dégg daal wala mu yomb a jàpp maa ko leen nam ma ko waxe woon lu ca mel ne ne nit ci man mii la di ko ñaanal moom itam suñu borom bàyyil ni ko fi mu yàgg a taxaw taxawaayam bi muy taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ci wetu magam ji di Sëriñ Fata Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Fadal